basumo basumo mbara suko nonko abije iba le ja nafio nafio ko tay video bi live bu gaaw la live bu dul live bo xam dañ koy accès wat ci ja al aqwani mal baatin mooy deug kesse ndax yeen ñep gis ngeen li fi xewa dekk bi mu ngi dox télé bi fees nañ tey gis ngeen problème bi am au niveau de Tamba ba mu am ay altercation yéen la jeunesse patriote pour ma wax leen seen warteef tey parce que tey Bougane Gueye Dany yow Maître El Hadji Diouf xam nga ne depuis samedi ñëpp ñu ngi ciy jox dox tànku jàmm mais yéen la jeunesse faut que xam gis nga ñaari galon gendarme calculé 32 000 gendarmes sur 18 millions de sénégalais 6 millions d'étrangers pour 32 000 gendarmes benn gendarme un nekk kon galon bu nekk ñaata citoyens yi lay amul pour nous libérer monsieur le ministre de la justice merci beaucoup félicitations gis avons ce courage gis avons au moins. Nous avons un ñoo niveau ak politique niveau avons dépassé la politique un gendarme mo jël tëneem ak galawam ak avec teg ko ne pas mom il préfère Simbitoni bi rek yu ba nee naa leen yéen waru leen woon baara yoon bi ba ngeen koy japp di ko tëj barrage vous avez barricadé la route lolo dul won yon te muy deug mais nak ab gendarme mo bind un agent a sermenté ba barki démb ak démb nee naa nañu fexé ba affaire bi bu mu nek une chose politique et cette fois-ci nak deug neex yalla gaay man nee naa luma ma d'accordul d'accordum ko mais tay sama boy gendarme gis nga nu leni couvrir yeen patriote yeen nationaliste gis nga nu leni couvrir le lu ko raw lay couvrir sama boy policier yi ak sama boy gendarme lu ko raw ndax ñom dañ leni sante ñuy def te ki bi pa ken sante ko il était en service te waji waji wax jaay ko doole momit mu tek autorité nay leer suma neexon neexoon tooj na leen c'est un problème politique bo leen gisee ñom bàtt ñoom Me El Hadji gis ngeen nu mu dalee ñoom ñëpp génn dal ils ont compris la situation parce que le gendarme était là-bas gars yi même bu dee benn gendarme élève gendarme bu def quatre mois de formation ba pare yow mii civil moment bi ngay nelaw moom bu dëkk bi amul sécurité agression yi bëri te te gendarme yi ngeen di saaga kon tey nag gendarme bi moo jël dignité teg ko lu ma si metti nag après bu ñu ko affecté dinaa ci xëpp kaani ndax ñëpp ñaan ndekk ñëpp a ñaan jàmm kilifa réew nag jóg ne ñaan ndekk ñaan jàmm même ministre de la justice tey ba ñoom bi ñuy ñëw ay ñoom Abbas lu ñu leen waxoon non ay ñoom kii Assane lu ñu leen waxoon dañuy dem jëli boogaan ñibbi ñun ñëpp loolu la ñu fagoon mais le petit a catégoriquement refusé et il est dans ses droits moom moo joteeg boogaan moom la boogaan tooñ moom dal mais c'est un gendarme qui est à l'origine donc ce n'est pas un problème politique parce que le ministre de la justice en personne ne peut pas bàyyi comme mu liberté provisoire mais ça ne se passe pas comme ça avec les hommes détenus avec les SDF surtout quelqu'un qui est assermenté ça ne se passera pas comme ça Malin, leen gën a ça ne me plaît pas parce que Basirou, ci kaw la nekkoon ba cortège présidentiel Amoul y avait pas eu de cortège présidentiel sincèrement dëgg moom a sonal mais nag c'est pas l'État qui a déposé une plainte coup de fil yu jóge ci kaw dañ na bàyyi leen ko mu dem nay leer rek coup de fil yu jóge ci kaw dañ ne bàyyi leen ko mu dem ndax réew mi talul lii nay leer mais bii paa nag gendarmerie bii ma gis nii saway waay du gendarmerie boy bi ma gis ni tay boy yow pour ta carrière pour ta carrière dugal nga sa bop tay lo xamné pour ta carrière ça peut être grand mais régime bu doog tok nga ko def régime bu tok nga c'est au Sénégalais de juger man mom lima lèr ba lèr pour la affecté poste bu la arrangé wu dinaa wax ba wax sa tour wax sa identité waxtu la buñ la rajee dina wax parce que un problème de mais Mais man personnellement je voulais supporter l'opposition mais ça c'est n'est plus un problème politique ça dépasse la politique c'est un agent assermenté Quand on ma ñëw fi di len wax gauche droite di toj carte gi ka la ñu manipuler en faveur de en faveur de mon je ne suis pas ce genre d'homme ndax man mii depuis barki démb maa ngi ciy négocier keroog bi ma laay fene leen c'est pas normal la ma autorité yu bëri woo eh, eh, ma nekk si suuf di négocier na jàmm am na ñu def glace na ñu def glace mais lii gendarmerie la jote léegi ñu dem suñu élection passif benn dictature Denis Sassou Nguesso Paul Biya Idriss Déby dictature yu mag yëpp commencé wul par les armes négatif dictature dama fiy 20 20 ans suis fiy 40 40 ans xam nga commencé il faut endoctriner la population naka la endoctriner endoctriner population limu bëgg dégg nga kay wax limu bëggul dégg on koy jéggi dem Liñu def Tamba tay, ma gis yi si tribunal bi Ñi ñew barte opposant mo fa nek. su xex amone am ay nous waxati opposition di pouvoir Si vous bu une police dorée, nous ne le lan la police ak gendarmerie te pourtant vous, patriotes, patriote fi ngeen tay bu police bu raisonnable Sénégal da parce que loolu lay tay pour nous supporter justice même si bu ñu ce n'était pas à vous de gis après dem len seetaan ay documentaire Paul Biya ak ñooñu naka lañ def ba coloniser seen dëkk yenn jeunes ni bo amé man tay suma amone 5000 jeunes yoo xam c'est des vrais patriotes ku jóg lu jóg fas dem tak sa kaw fas dé dee xex carrément dem len xol ñom Paul Biya biñuy commencé si c'est les militaires qui tuent ou c'est les civils qui les supporté qui tuent. Macky Sall loolu la commencé won mais ça n'a pas réussi parce qu'il ne l'a pas fait très tôt deuxième mandat am la ko def. te mos naa ko codé ci biir benn réunion nee naa leen li ngeen bëgg a song ni deuxième mandat ngeen ko def si trop moo taxoon may daw tinu bu falu bu tinu bu faloon da koy accéléré dañ naan peuple bi faral nañ ñu financé leen ay ñoom dumbur saw jër corote leen day ay jaas yi bu yàggee police ak gendarmerie dañuy ñëw ànd ak ñoom parce que dañ naan peuple bee seetaan noonu la dictateur di démarré Pastef Zahra yaa nekk Tamba tey bu tribunal bi tey tàkkoon lu ñuy def jël ñoom Barthélemy tej est ce que Barthélemy la ñu tej wala yeen ñi ñew seen yoon nekk fa lañu ñu a jël tej gaay ci république lañu nekk nekk ñu ci réro big suñu bik yi gul ñun liñu bindoon wax ko dem mu ngi fi ba tay ci république lañu nekk c'est pas parce que Ousmane Sonko lañu fal 2 millions nit ñoko voter rek ñepp war ne gongo gongo luñu may wax ñu ne waaw Sonko gongo négatif bu yagge ñepp bañandoko sagandoko nday ndax yeen sen comportement je ne suis pas d' accord quand je ne suis pas d' accord je ne suis pas d' accord parce que tey bu ñu daloon seen kaw yéen ay nekk position de faiblesse yéen li ñuy jël nokkaat leen ci kaso bi ñu jiñaat ñu lan xeex mooy suñu métier. or nii la dictature di commencé ay Houphouët-Boigny Senghor ak ñëpp ci yam ay ñoom Tonton Mbaye Jacques Diop ñi ñuy tagg nii lu ñaaw luñ fi deful amul kuñ fi effacé wul amul ndax lan ils étaient là pourquoi un régime. régime bu xasee déteindre ci biir état ils vont perdurer faire 50 ans ou 100 ans moo tax tey Denis Sassou Nguesso toog parce que lan ci biir public bi ci biir peuple am ils sont prêts pour te tuer ana Guy Marius Sagna bi fa demee di wax est-ce que c'est les FDS négatifs ce ne sont pas les FDS Nous, c'est les forces d'une dictature une dictature FDS yi gendarme c'est des marionnettes dans une dictature c'est à vous le peuple c'est le peuple qui impose une dictature comme Taïmali, Mali Taïmali, militaire parce que là, c'est le peuple qui les supporte réfléchissez patriotes. Nous, ñoo nekk ci pouvoir Taïmali, mort à moi. ak ñi nit ñi déjà gis nga len ñom ñep loi amnesty bi ñun lañ ko jiiñ tank loi bobu leeru te du ma sa leer amadou bang tay mu ngi leen di ñëw wax ak yeen tay tay limu wax ak yeen yeen patriote ma ngi gis ñen ñi naan ki lan la bëgg def waaw dafa bëgg def ki politique xawma lan doomu ndey wante politique gatsa gatsa lañ nek gis nga faal njaga yaram eh patriote réveillez vous ximu leen seen boo leen gisee dëgg teg leen ko ci gis nga journaliste yi nekkantu far toog ci plateau yi di wax bay gi Ousmane Sonko profitoo leen bu baax ci barke ndax barke boo gis <laughs> barke politique day naaw barke politique day seey comme silib profitoo leen nag c'est le moment boo leen ci amul jëkkër dootu leen sëy tey xam-xam bi Amadou Ba waxee sagesse étatique bi mu waxee ak la manière dont Sonko sa comporte ñom ñaar kan mo gën nek homme d'état kan mo gën nek homme d'état kan mo gën am bàmmeelu bir ci état état du dag sente de état c'est très dangereux état du du lo xam day dag sente état du lo xam depuis karak bi mo waxee chiffre lan la leen wax prix man len ma bañ d'accord mo 900000 ma bañ ma bañ ma bañ parce que xoola du lepp lañuy génné ci état gars nous xamé né da ngay wax gis nga dañ lay comme yoon répété live tay il est au secret des affaires est-ce que na négatif il ne va jamais tout sortir jamais ça ne se passe jamais comme ça dans l'État heureusement que Sonko premier ministre la amna heureusement ñu que nous réew réew day am bu fa gars politique on en a marre sincèrement man xaw ma la de tey dama toog ba si yàgg j'étais trop nerveux ma ne non ça suffit quoi benn instant ça suffit ça fi ça suffit état c'est complexe te gars yi dañ ñoo gars dañ leen sut si xel gis nga ne ku sut si xel booy wax ak da ngay wax si code bàyyi leen ko wax da ngeen ne waaw waaw waaw saaga yéenay saaga de mais ñun ñi di wax ak ñoom ñii di leen jaay nganda nganda lu ci kaw yéen yéen ñi nekk baa peuple jaaykatu ngoo ñi jël sa 1000 francs war ko jëndee say juin cotiser ko waaw xëy na yow yaatal amadou ba wax nga saga ko barthélemy wax ngay sagan peex mom kenen ak kenen wax ngay sagan peex mom japp len ne ñom ñi problème bi lu muy rëy rëy rëy bu doon ñaari nit génnee nañ ko ci passif bu doon ñaari nit génn nañ ci passif bu doon ñaar génnee nañ ko japp len lolu rek xam nga ya nga nan perte len dara ya nga nan perte len dara li lay top ci terrain bi campagne ak li dugg ci enveloppe du benn yéen li leen topp ci terrain bi campagne boo ko calculé xam nga mu ngi 62 et quelques pour cent on est d' accord sur ça dañ d' accord dañ leen sàcc mais foog ngeen xam ne état dafa am lu muy doxe ay ay code la tey xam nga ne tey bu ñu demee tey élection bu ñu leen ne tey kaa leen tey dajaloo tey si plateau kaa leen tey dajaloo tey si plateau tey argumenté normalement war nañu mun daje Sonko amado Ba. Tahirou Sarr war nañu mën dajé argumenté ci plateau ndax ñom nekkay wax ci argument té Sonko léegi dafa commencé top ñom bart ba nangotul wax ci argument Sonko léegi dafa dafa wala wolofé ba mu upp wala dafa wolofé dafa mam Ndiaye savon wé nang nekkatul ci argument yi nekkatul ci programme bi mu nekkoon avant 2019 nekkatu fa gaay yi désaxé nañ ko foog yeen patriote yeen mu jappal Ousmane Sonko ak Sekowaat yéen a ko mu ak Sekowaat noo leen koy accès waat yéen yéen a dootul def yéen yëfi yi dof yi gis nga li ngeen def nii Tamba tey bu la trente mën na jur loo xam ne ah, ñoom seen campagne fa lay jaar baax ba faw te man xam nga lu ma si métti bébé Zahra mi ngeen nar a ñàkkaloo ay élection am Tamba te ay Kédougou ko yëpp ay Bakel ak yëpp waru ñëw mën a voté si yoon waru ñëw voté mais yéen patriote foog ngeen regle dëkk bi noo leen di réglé dëkk bi gars yi da ngeen a xeex cinq ans te neexul ba neexul bi ngeen xeexee ba xeex am na ñoo xam biñ ci roccee seen loxo da ngeen ruux passif xeexatu leen woon yéen ñëpp ruux naan carte yi carte leen woon Fall Ndiaga Yaram doo leen xaar ba tey nag ñii nekk fi di opposition waruñu siiw yéen ngeen di génn di tentamar mba gis nga gis nga yii koy def bu yaakaar ne Ousmane Sonko ngeen di yokk doole na ñoo xam ne dañuy voté te xoola faalewuñu Sonko faalew ñu buugaan faalew ñu tayru faalew ñu bart faalew ñu kenn xam nga ñoom lu ñu faale dañ naan teg toog di seetaan journal rek chaque jour ñu seetaan la nga wax lu intéressant ñu capté nga wax lu kii ñu désaxé am na ñoo xam noonu la ñuy dundee Sénégal patriote réfléchissez mënuñoo falu am kuddu ba pare bëgg a lakk yéen da ngeen am kuddu gendarmerie police justice douane ak lépp ba pare da gis sax ñuy bind naa naan ñoo moom police moom gendarmerie moom ba xex bi démarré ngeen xam nak police yeen lay nok yeen mi ñew di tooñ wala ñom barti mi am problème ba nek ci bir kasso bi la nok wala yeen la nok yeen lañuy duma boy foog ñu wax leen deug sincèrement ñu wax leen deug ni ngeen bëgg politique ni du dem ça ne se passe pas comme ça dans la politique parce que xex ngeen xex ba yegg si bi da ngeen ni xex ko wax ngeen xex 5 ans dafa sori 2029 dafa sori de patriote ngeen bëgg tàmmalee xeex jëm bi sañ Bàmba doo leen ko yeggali police du leen ci bàyyi gendarmerie du leen ci bàyyi kenn du leen ci bàyyi opposants yi duñ leen ci bàyyi seeni militants duñ leen ci bàyyi kon fu ñuy mujjee réew détestante réew toog xoolante doo patriote dañu lay lekk est-ce que c'est une raison dans ce pays est-ce que ñun Sénégal war na toll fii en ce moment man tey dama gis tàmba tëgg sabar yi di supporter naan Sonko buntu kii mané kon légui kon yeen kon yeen dal Sonko manam légui mom nawlem la quoi kon manam wala bugan légui ëpp na niveau Sonko nak buugaan lañ tekk ngeen ñew di sabor kontane bay jubilé ba créé xex ba saga sen day kon kañ mamay maye ak Sonko ño tolo niveau. alhamdullilah ba basir jomay fay genn na sen affaireu xalé yoy heureusement bas affaireu xalé yoy doko ci fekk heureusement réfléchissez bu xalé xalewee dofé bëgg ci yobbu suñu autorité négatif tey yéen a politiser affaire bi mais man tey sama diggante ak sama borom man mii si ñekk ñetti fan di jéem a wut xam naa ne tey ba ay ministres ils ont intervenu pour qu'on libère Bougane la gendarmerie a catégoriquement refusé booy bi déggoo tey bu ñu bàyyi woon Bougane booy bi day simbi tonneem ak ay galawam démissionné de la gendarmerie dem kon yéen loolu ni politiser dossier ba muy politique patriote qu'est-ce qu'il am ngeen lu leen doy yaa ngeen ak seen i pôle concentré wu seen i pôle faal ñun ñoo mën apaiser dëkk bi ñun patriote ñun nationaliste ñoo mën a apaiser dëkk bi actuellement dëkk bi tàng na tàng na tàng na ñu topp politiciens yi rek Sonko bu kii waxaatee kii mu ngi tibbi tànk kii mu ngi jaay nen kii mu ngi sàkk mais c'est la merde nous avons des problèmes le pays est bloqué chantier yëpp ngeen ñëw bloqué seen ñàkk ñàkk xam liggéey la ñàkk xam état nu muy doxee moo tax Sonko ñëw téye chantier yëpp ndax lan ay Clédor Dambodj dem nañu filmer ngeen daw bloqué chantier yëpp mais moo rey seen économie. politique train la buy daw on le prend en marche lan laa leen waxoon voté nañu ay projet de loi 2024 tey Tinubu il va la éclaircir entre 2024 2026 nit fi def dara du dul ay redressement ak ay calculer waat di ko teg mais c'est déjà voté état noonu lay doxee bàyyi leen di werante si lu bëri la rupture bi ngeen de dañuy le ta nek on on prend un train en marche quand on le prend en marche c'est les hommes qu'il faut décapiter politique daam fo xam da ngay soxla violence am fo xam ne pas ko répondre buñ la ci répondre nga perte parce que yow mi au état toujours fété au perte je vous avertis encore dès que tu es président tu deviens ennemi dès que tu es opposant tu deviens idole ku leen ne woon tey Barthélemy Diaz nit yi neen ko seetaanaat do leen ko gëm mais c'est la règle du jeu doomi aadama la yalla bindé lolu ñun mindeef lolu du affaire partisan ak partisan de gis nga 54 2029 bu ñu wulé dëggantaan 50 donc cent deuxième tour ngay am wala 51 52 ngay am rawat bo démé 2034 bu fa xex nekul dëggantaan chaque 10 ans dañuy changer wat nak lan on n'arrive pas à se comprendre on n'arrive pas à se comprendre pourtant ñun ñëpp a bokk lu ñuy wax Bougane Gueye Barthélémy Diaz Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye Tinubu Tinubu Macky Sall ñun ñëpp bokk lu ñuy wax xam nga lan Sénégal bu baax la ñu bëgg Sénégal bu développé Sénégal bu ñu lii Sénégal bu ñu lii waa léegi waa ñu te bu ñu faloo xeexaat suñu biir kon le problème est où c'est le système problème bi c'est le privilégié c'est système te ñu ñëpp ñu ngi gis ne c'est le système mais comment faire pour décapiter ce système te ñu topp ci rythme système bi

bugan xëccewul dara xam nga lu muy xëccew mairie Saint-Louis bugan en grosso modo objectif am xam nga lan la mairie Saint-Louis ndax wa Saint-Louis supporté wuñu ko nawlantew ñoo ak moom xëccew bi rayanté bopam mi ngeen fakk ne bugan suñu assemblée yi lay xëccew mairie Saint-Louis lay xëccew yow Mansour fay bugan ngi sa kaw tay ma la mooy tay secret bobu te dañ ko ne Ousmane Sonko bi muy commencé ni la woon entre 2017 yoy dañ parce que Ziguinchor Ousmane Sonko bi muy falo lan la falo plus forest est-ce que département Ziguinchor la falo déedéet ni la falo que andi bruit ba jall plus forest sinon après lan mo nekkoon deuxième objectif am mairie Ziguinchor deux objectifs deuxième objectif mairie Saint-Louis tout a été écrit damay bokk groupe mais ça ma jékki-jékki génn groupe yi patriote c'est dommage que <laughs> vous n'êtes pas au rendez-vous de la politique parce que vous n'avez pas assez assez éveillé moo tax bu lu ñu comprendre internet rek tufli ci ay saaga sama bébé ki di rëy ndeysaan démb ñu ngi ma yónnee vidéo yi dama tonton xool ñi nit ñoo saagee te ñun dañu ne man ne leen déet Sonko moo ne ki di retaalul te man ma ki di retaalul ndox te man ma am fa njaboot sama njaboot vidéo da koy publier ñu lay saaga sa page te yéen Sonko wax tey benn booy ne ma non grand yow soo bëggee xeex fa nga jàppale Pastef euh, ma ne ko booy bu ñu waxati ci cohérence ma xew li laay war rek bu ñu waxati ci cohérence parce que man 2022 passé maa leen fi ne woon bu leen voté ji 2022 législative yii fii passé maa leen fi ne woon état boo ko joxee majorité assemblée nationale yàqu nga yaxeet te heureusement bi ma koy wax Ousmane Sonko da ko waxoon mais lu tax ñu ñëpp ñu ñëw ren ak yéen wax waxet xam nga man sax man mi ñëw naa ne leen jox leen 140. xam nga waxo nous na ñun xam nañ consciemment 165 députés que am ça ne peut pas développer le pays consciemment nous ñep suñu akulaata la ak 165 députés le pays ne peut bouger d'un iota. c'est des ajustements structurels ñoy bouger le dëkk bi ajustement yi la cadence bi ngay mais nous nous assembler. parce que 165 députés ngeen bëgg ne la justice sera libre nous sommes libre munul nek la justice ne sera jamais libre motax deuk yeb diko éviter parce que tay pour ñu tej ñom Macky Sall calculel accusation bi fi muy député ñoo ñëw def accusation te député pour mu def accusation ñom bu ñu 165 mais lu neex état lu neex gouvernement bi président bu ko neexee né eh accusé ma leen lii ak lii ak lii ak ak ak jox leen député def sen accusation jël Macky Sall tej bu ñu mais Afrique modi deuk bo xamné bés buñu ñu deful suñu majorité ne len voté len ñu 140 députés ñëlé ni ñu bloqué woon projet de loi bi passé buñ ñëw dañuy bloqué c'est que ñi ñoy baadoo la ce qui fait que yow boo toogee foog nga changer sa comportement parce que da leen di bëgg top ci républicain mais ñoom ils ne sont pas des républicains. ja al ak wa nig mal baatinu chaque jour ma wax leen ko bu dëgg jotté dam leen koy daj fu mu yam neex ñun ñoo leen ne 2022 assemblée bu leen jox député majorité ñoo leen ko waxon 2022 bi passé ren ñun ñëpp a ñëw génnaat ci loolu ba mu set rek rek pourtant ñun ñëpp am dignité mais boo duggagul ci état lu la neex ngay wax mais boo ci duggee ba xoos di nga xam ne li nga waxoon mënoo ko def surtout boo ko sekkee ay baadoo la li nga waxoon foog nga war naa si ko génneel beneen stratégie teg ko mu dem loolooy politique yonent bi xëyul ak julli bàqa la goon jullee booy bi naan ma grand yow da ngay wax waxet mën na ko ee eh! yow fo djublu bo len ni djulli yéen fo len ni djublu fo len dan djublu Baqa Israël ngeen dan djublu à ah, l'ouest djulli yi njëkk yëpp Baqa le Rasulullah sallallahu alayhi wasallam djublu diko djulli lan moo tax mu djek djek yalla ne ko eh kon yalla ma dak wax waxet mom mi ko lo makka xana yon da ngeen wérul aduna di gis di nga programmer dara ñew ba ci bir mu soppeku weddi len yéen da ngeen déggul kon yéen daal nit ki daal boo nee dafay xonq waa léegi boo xëyee yow nekkal bébé ba keroog ngay dee ñu lay couche mënta nekk ndax màgg nga bi nga màggee soppeeku woo say xeetu puub changé wul say xeeti doxal changé wul bi nga taxee jabar génnoo dem seen kër da nga wax waxeet ndax say waajur nga waroon toog vous n'avez pas compris la vie vous n'avez rien compris moo tax yenn wax yi ngeen ma koy wax moo tax ma nit fu suprême ba laa lay laal ne la yàllaa ma daa ko wax waxeet coow li jeex waaw moo fi gën ñoo ñu gën aywa Moussa moo fi gën juif yi ne ñoo ñu gën chrétien Jésus fi gën ju chrétien yi ne ñoo fi gën musulman ñu ñu ngi ni ñëw ne ñoo gën ñëpp fan la wax waxeet na dina leen dégg ci code gis nga oh laay bi jeex na sax basuma basuma mbare booy ku leen ni Sonko day fen ku leen ni Sonko day fen yow xool ko sa bopp rek bi nga juddoo ba tey ñaata yoon nga wax dara changé ko yow xoola dinga nga ne yow man xoola xaaral tey journée bi 100 francs lay liggéey waaye léegi yow boo génnee ñu wala sànc 3000 francs looy wax gars yi gars yi nañu bàyyi di politiser di manipuler di wax waxi fen ñu bëri duñu fen da ngay wax wax bi deñ nga layal ko xam nga lan mooy fen ñu nettali la dara ci biir néeg nga génn wax ko ci biti loolooy fen basuma basuma mare su ko noonu ko abidé ba